5M TV Sénégal mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal nag jàmm ci xibaar mbirum Pape Alé Niang ma gën a jéggi dayoo ci ginnaaw bi nga xamee ne rek ni ki vendredi bi mi ngi doon amal ab grève de la faim moom mi di Pape Alé Niang instant bi nag ay mbiram daal ma ngay gën a critique ndax instant bi nag dajaa jile feebar métti lool ci grève bi nga xam ne daal doon na ko def moom mi di Pape Alé ci ginnaaw bi nga xamee rek toog na ay fan lekkul naanul moom mi di Pape Alé Niang di naqaru lekk li nga xam ne moom lañ ko jàppe woon nag tax mu naqare ko lool ba tax mu def grève de la faim waaye nag loolee daal ma ngi koy jural musiba gu rëy moom mii di Pape Alé Niang ndax Issa bi nag jamono ji daal ma nga wér di lool ndax ka lekkul naanul ay fan moom mii nag di directeur Dakar Matin daal ma nga tawat tawat métti lool foofee ca kaso ba jamono ji daal ginnaaw bi nga xam ne rek mi ngi amal ab grève de la faim moom mii di Pape Alé Niang kon mbokk yi jox leen dig daje ba neen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci ànd beeg 5M TV Sénégal